Sonko maanaam apaisement ma ngi am dafa mel ni jamono ji mbir mi ma ngi nooy loolee moo tax journal bi di Rewmi Quotidien xëy samp ab laaj nee na lan moo xew a diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall journal bi di na ko nag loolee jar naa laaj lan moo soppeeku diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall na ko am na lu xew a journal bi di Rewmi Quotidien na ko may ma yeggale ginnaaw Ousmane yi nga xam ne moom la ñu defoon këram jamono ji daan nañu koy teggee te gouvernement bu Sénégal ñoom nag nee nañu li tax ñu teggi ko mooy jamono ji gis nañu ne doxul te gis nañ ne Ousmane Sonko bu ñu ko bàyyi woon mu féex maanaam da doon woote ay manifestation yoo xam ne ay yàq ki yëf mën na sa am te nag comme jamono ji dem nañ ba nga xam ne tension amutul loole moo tax ñu daal di dindi barrières yi loolee la gouvernement ba Sénégal daal di wax te Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu dindee barrières yi moom tim daan nay wax ay ñam na leen toog leen bu kenn ñëw li nag lu événement te nag Ousmane Sonko sax fan yi nga xam ne ma lu ñu génn gis nañu ne ñi nga xam ne ay ñoñam lañu ba ñu bëggee amal ab investiture ngir nag daal di koy samp ca stade Amadou Barry ginnaaw bi ko préfet tere Sonko dafa wax ay ñoñam na leen teg lépp ci suufa bu leen résister journal bi nag nee na ci xëlim ak Assane Samb nee na ndax médiation amul ci suuf diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ndax nag amul ñenn ñoo xam ne jamono ji ñooy dox tànki jàmmu diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall journal bi nag nee na loolee ab laaj la boo xam ne laaj bu jara laaj la ndax nag jamono ji gis nañu daal mbir mi ma ngi nooyee te am na sax ay jegeñaale Ousmane Sonko yoo xam ne amalante woon nañu ak yoon jamono ji ñoo ngi commencé féexa yéen kaay gi de la sa nee na ki nga xam ne mooy roi Mohamed VI buuru Maroc moom ci boppam dugal na ci loxoom diggante Ousmane Sonko ak Macky salla bu ñu waxantee dëgg yéen a kaay gi de laas moo xëy di wax te nag yàggatul dara roi Mohamed Sisa maanaam dina recevoir Ousmane Sonko waxtaan ak moom waaye tamit dina recevoir Macky Sall waxtaan ak moom yéen a kaay gi de enquête xëy di ñu xibaar naan ñu kan mooy wuutu Macky salla kan mooy nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle 2024 xeex bi jamono ji ma ngi mel ni tulleeg male Abdoulaye Daouda Diallo ak Aly Ngouille ñoom nag ab alliance ngir nag contre Amadou Ba journal bi nee na premier ministre bi nag gars yi ñoo ngi koy xeex waaye nag ba léegi moo nekk favori yéen kaay gi di source xëy duñu xibaar na ñu lu jëm ci wàllum promulgué loi bi nga xam ne aju na ci parrainage bi ak supprimer li nga xam ne mooy kër yi ba léegi amagu ci mën a la gis nga lan la Macky Sall di xaar loolu la journal bi di source xëy di laaj yéen kaay gi nag nee na Macky Sall na saisir ñi nga xam ne ñooy waa conseil constitutionnel te nag ñi nga xam ne tamit ñooy waa conseil constitutionnel ñoom nag war nañoo tontu ki nga xam ne mooy Macky Sall bu leen saisiré ci ñaari loi yi nga xam ne jëm na ci benn bi jubbanti lu jëm ci wàllum parrainage bi beneen bi jëm ci wàllum suppression li nga xam ne mooy escrocs yi loolee nag ci boppam ñoom waa conseil constitutionnel dañuy xool ba xam lu constitutionnel la yéen kaay gi di Sud Quotidien ak L'As xëy dañu xibaar naan ñu Aliou Sané bu yaana mara bu muy tuulee maanaam dina dem ca kasu ba ndax ginnaaw bi ñu ko tegee loxo mooy keroog bi nga xam ne waa Yewwi Askan Wi dem nañu cité kër góor gi na dañuy dindi barrières nga xam ne moom la def Ousmane Sonko jamono joojee dañoo tegoon Aliou Sané loxo daal di yóbbu nag jébbal ko juge d'accusation chambre d'accusation bi jox procureur dëgg kon nag jamono ji maanaam Aliou Sané ab mandat dépôt moo koy yoota yéen a kaay gi di wal fajiri nee na Cheikh Bara Ndiaye may nañu ko ab liberté provisoire waaye nag dafay des ci kaso bi fii ak juróomi fan bu dee nag procureur deful appel yéen a kaay gi di réew mi quotidien xibaar naan ñu Macky Sall neexul ba neexul waaye nag Macky Sall war lit nit ñi wala mu firi leen ci jëm ci kan mooy nekk candidat Benno xam ne mooy Rwanda fukki fan ak juróom ci weeru juillet ñu bare bari jàppoon nañu ne Macky Sall nag dina wax kan mooy nekk candidat benn bokk yaakaar waaye Macky Sall ba dellu see ci mi Macky Sall waxul sax ci lu jëm ci wàllum candidature benn bokk yaakaar te nag ni ki démb Macky Sall jóge wànn ci réew mi bàyyi fi laaj bi nga xam ne gars yi ñoo ngi koy laaj kan mooy nekk candidat benn bokk yaakaar ma ne la gis nga Macky Sall ci boppam moo war a génn ci yi mu nekk yéen kaay gii di lay ko xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci fond covid 19 bi xaalis bi nga xam ne ma ne la moom lañ doon wax ne lenn ci xaalis bi dañu ko luubala enquête bi nga xam ne nag waa DIC doon nañu ko def ci ministère bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ci mën a la enquête ba pare na dossier ba nag jébbal nañu ko procureur yéene kaay gi ne na professeur ko waaye tamit ki nga xam ne mooy professeur Daouda Ndiaye moom tim déglu nañu ko ndax ñaar ñi dañoo yor ay structure ci lu jëm ci wàllu wér yaram ke te nag tudd nañu leen sa loolee moo tax ñu daal leen di déglu yéene kaay gi ne nag ku ñuy wax Moussa Sam Dafe moom tim déglu nañu ko Cheikh Tako Diop déglu nañu ko docteur Mamadou Ndiaye déglu nañu ko Aram Top Sène déglu nañu ko Babacar Sène moom tim dem déglu ñu ko yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum police sub Sénégal bëri na ay coppite yoo xam ne amal nañ ko see am na ñoo xam ne dañu leen a sanctionné am na ñoo xam ne dañu leen a récompensé maanaam dañu leen a neexal yéen kaay gi de Le Soleil xëy duñu xibaar naan ñu gouvernement bu Sénégal ñoom nag démb nee na nañu lu jëm ci wàllum gaal gi nga xam ne moo këpp woon ci wa wakaam yi fukk ak juróom benn nit maanaam ñoo si ñàkk seen bakkan waaye du fukk ak juróom ñetta moom Abdou Karim Fofana nee na nag lu jëm ci barrière yi nga xam ne dindi nañu ko ci kër góor góor gi li ko waral nag bokk na ci maanaam tension amatul appel à l'insurrection amatul yéene kaay gi di réew mi quotidien moom Abdou Karim Fofana nee na lu jëm ci wàllum teg loxo Ousmane Sonko yóbbu ko ca kaso ba na moom du procureur procureur bi jamono ci moo yer cëggul gu yama yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital Matlaboul Fawzayni ca Touba démb amal nañu ab sitina ñoom nag la ñuy ñaawlo mooy hôpital boo xam ne ni ko yoree yorin wala ndam na lool lool loola ma ne yoo xamante ni doy na waara